3S Pro. ma leen lu duma daan samay supporter dafa daan tàmbal ah. treize combats laa def waaw ñaari yoon laa ci mu juum juumaat waruma nekk sama ginnaaw hmm. waruma leen yaa fas waruma ñàkk fayda daa am lu may xaar parce que la ñoo am ci man yaakaar am fu ñu may kon war ma wan a yaafus war ma war a ñàkk fayda uh-huh. fulla ak fayda ak jom lay wane te incha buy jom buy fit maa buy fulla maa buy doole maa ëpp maa dàq bëre daam li nga wax yombul na de lépp lu bis bi laaj maa këpp daam li nga wax ni yombul nga yaakaar ci kàddu yàlla bu ñu ah. nii ah. mais mujj combat bi mujj a bëre même da koo ñàkk mais da ko bëre metti mais grave ma sama lamb yëpp metti man mbër mosuma diise ñàkk ma fayda mbër di ma diise sama borom di ma diise amul benn góor mooy ci géew nga may am loo may commandé wala lii kon Modou Dia du la commandé bés ba arbitre jaru ñuy wa ay pare nga ak pare nga parewul non non arbitre nañ génn géew bi rek ñu mag moom yéen ñaar ngeen jëflante du moom bi taa ak moom bu ma yëpp mais ki ñëw ba fii ñu bëre léegi garaawul loolu la coow wax na ko loolu màkk jëkk def li mu def nii ah. day fay bor bi màkk jëkk gis màkk def fii yow dañ dee fii ah may daw gars yi ma sa waaya ngi nga daje ak moom bu suuf si nga kañ may ko léegi bu no bala ah. lii miis nañ ko pour lii nii man ak moom mais yéen ñaar li ngeen daj ma su ngeen laalante nii bëree ci ñamante ci bëree joxante loxo sax bis ba waaw sama loxo bi waaw sama loxo bi incha allah rabbi sa droite bi sama droite bi waaw la laa koy da koy dal. mënu ma ñëw fii du ma sant waa kër champion of box club Almadi waa kër champion of Souleymane Mbaye di bu baax mu kosi kosi El kosi Prospère kosi boxeur ne foofu yëpp maa ngi sant leen gërëm ah, Souleymane Mbaye benn waaw fala entraîné depuis ay depuis trois ans maa foofu di nga ak boxeur yi fa nekk yëpp. waaw parce que tamit gars yi fa a box ci me bi maa ngi leen ndam ñoom ñëpp. waaw maa ngi foofu. ñaa ngi foofu kon xeex bi xalaatoo ci dara. bi moytu ma ci lenn. moytu lamb loo ragal moo lay gaañ. ah adduna. waaw ma la lamb adduna. loo ragal mu gaañ la. kon mënut a mënut a ko doo ko ragal kon. ragal ragal yëpp yàlla àdduna loo ragal mu gàññ mais yéen ñaar techniquement nag boo waxee daam te yàlla rek tax yàgg mu ja xam nga ko xam na la ku dàq bëre loolu nag arbitre laay euh, amateur lay bàyyi jugé man ku ma nekk sama du onze victoire yëpp ku nekk na ma daane bokkul na ma daan sama borom. xam naa li muy bëre. bu baax waaw may booy di ko seetaan muy mbabat. Ah, xam nga li muy bëre. xam naa ko bu baax. li mu def foore xam nga ko. xam naa li foor lu mu foore. xam naa li foor loolu nga denc pour man. day xar géppen. waaw loolu yëpp. wala teq kat la wala day mbot kat la. coo jiwul man bëre man bëre man man man làmb man ni ma nekkal fii. képp fit yéen ñaar. loolu kenn kopp fit waxuñu kenn dama la ne kopp fit mu yow mi daam tontu ma lamb la lamb lamb lamb lépp lu laaj maa ko maa ko déglu yéen maa ko mbooloo yàpp mbooloo ma dàq bëre ma dàq ma fit lépp lu lamb laaj maa ko dàq kuy daan incha allah ci kàttu yàlla may daan ñii ñii ñii ñii yow ma leen ñii yow ma leen Babacar man yow xam nga ne man dama koy def yow sa bopp xam nga ne man dama koy def li nga wax koy def yow xam nga ne man lu ma cey daam léegi de léegi léegi léegi xam lu fi desam léegi wool say mbokk wala am lu ngeen koy laaj yéen ci ma avant ma du foofu waxal ak say mbokk avant ma du foofu waaw damay nuyu waa parcelle da ngay nuyu waa parcelle ëmb 26 di nuyu sa mbokk gànjol gànjol yi waalo waalo yi di nuyu sa mbokk séeréer si di ñoojoor mbasis sum gambi dugg nga fi yëpp bikol sob di sant gërëm waa Jilaas di sant bu baax dëkku Njaga Saar yaa ngi dégg waa Samba Dia waa Diofior waa Combi Fimela maa ngi sant ñëpp Ganjoor Ganjoor Ganjoor maa ngi sant di sant sa mbokk Baye Fall yëpp di nuyu gars yi may jàppale ñoo xam ne lu ma nekk ñu ngi ci di gërëm sama entourage ñi nga xam ne ñi nekk sama ginnaaw nii nga xam ne dañuy bàyyi seen it def ndax lépp ngir man kon tey yoon la su li amee ma sant leen gërëm leen waaw fu ma génn liste bi sama grand frère maa ngi gërëm góor a ci moom laa toog otom la yëkkati jox ma pour ngay liggéey di bu ma ne bu baax ma góor waaw di sant gars yi may jàppale maam góor maam góor sama waay la sama grand la sama lépp la da ci jàpp bu baax Matar Matar Ndiaye père Manga Jakara mm-hmm. di ko gërëm bu baax Mbartine sama manager mm-hmm. père ba loxom bu jóg si ñun Mansour Ba Papa Gueye Xeer Wari Ahmed Boy Ambras borom asalam grand bi Tafisco business Papa Gueye borom Sokone di nga baax ma waa Sokone Lamine Diack maa ngi koy woo ci combat bi Daouda Mbow Pape Habib Gueye Alta Cheikh Kouyaté Daouda Mbow man mel na international maa ngi koy ziar Marco borom Sénégal rek mouvement Sénégal rek président borom mouvement Sénégal rek maa ngi koy woo baax baax baax Zio Dia Petit Dia Abdou Tall Abdou Xarañ Abdou Tall xam naa ne bu matul man day xar géppen waaw loolu yëpp wala kat la wala day mbot kat la coo jiwul man bëre man bëre man man man man ni ma nekkal fii kopp fit yéen ñaar loolu kenn waxtu ko kopp fit waxuñu kenn dama la ne kopp fit moo yow mi daam tontu ma làmb la làmb làmb làmb lépp lu laaj maa ko maa mbooloo ko déglu yéen maa mbooloo mbooloo nga ne mbooloo waaw maa dàq bëre waaw maa xeex waaw fit lépp lu laaj maa ko kuy daan incha allah ci kàttu yàlla may daan ñii ñii ñii ñii yow ma leen yow sa bopp xam nga ne man dama koy def. li nga wax danga koy def. yow xam nga ne man lu ma def. cey daam léegi de léegi léegi léegi xam lu fi desam. léegi wol say mbokk wala am lu ngeen koy laaj yéen ma avant ma du foofu. waxal ak say mbokk. avant ma du foofu. waaw damay nuyuwaat waa parcelle. da ngay nuyu waa parcelle ëmb 26. di nuyu sa mbokk gànjol gànjol yi waalo waalo yi. di nuyu sa mbokk séeréer si. waaw di Ñoojoor Mbasis. sum gambi dugg nga fi yëpp sant gërëm waa Jilaas Jilaas sant bu baax dëkku Njaga Saar yaa ngi dégg waa Samba Dia waa Diofior Diofior waa maa ngi sant ñëpp Gandiol Gandiol Gandiol maa ngi sant sant sa mbokk Baye Fall yëpp di nuyu gars yi may jàppale ñoo xam ne lu ma nekk ñu ngi ci di sama entourage ñi nga xam ne ñi nekk sama ginnaaw nii nga xam ne dañuy bàyyi seen it def ndax lépp ngir man kon tey yoon la su lii amee ma sant leen gërëm leen waaw fu ma génn liste bi sama grand frère maa ngi gërëm góor a si moom laa toog otom la yëkkati jox ma pour ngay liggéey bu mu entraîné bu baax. loolu de jom la war a yokk xanaa waaw. di sant gars yi may jàppale. maam góor waaw maam góor sama waay la. sama grand sama lépp la. da ciy jàpp baax. waaw Matar Matar Ndiaye. Manga Diakara. di ko baax Mbartine sama manager. Mm-hmm. Père Ba. Mm-hmm. loxoom bu ñu jóg si ñun. Père Ba Mansour Ba Papa Gueye Xeer Wari Ahmed Boy. waaw Ambras bu doon asalem grand bi Tafisco business. waaw Papa Gueye borom Sokone. Mm-hmm. di nga nuyu baax ma waa Sokone. Lamine Diak maa ngi koy woo ci combat bi. Daouda Mbow Papa Abib Gueye Alta. Cheikh Kouyaté international Marco borom Sénégal rek mouvement Sénégal rek président borom mouvement Sénégal rek maa ngi koy woo bu baax a baax Zio Dia Petit Dia Abdou Tall Abdou Xarañ Abdou Tall